local du ñu am waaye nag mbokk yaa ngi réew mi kon nag na ngeen leen wax ñu Bokk Yaakaar boobu mooy liste bi ma cautionné euh, bu ma ko waxee noonu nag xam naa dana am nga ko politiqué ba am na si tuuti gox yoo xam ne benn benn autorisé naa ñu am fa ñaari liste parce que dañ doon bañ suñuy voix di tasaaroo waaye loolu tuuti gox la ku ci mel ni Kolda bàyyi nañ mu demee ak ku ci mel ni Bignona par ci des li ci des nag moom am na aussi yeneen i gox yoo xam ne bu ñu bu ñu leeral ne lépp ñu ne. alors au lieu nga tere Moussa bàyyi jàmm mu dem ba nga naan yéen ñaar ñëpp dem leen ku gañ baax doom bi du génn gaal waaye nag am na ñoo xam ne dañuy mbubboo président te cautionné wu ma leen waxuma leen benn caution voilà loolu li ñuy leeral nag moom Sénégal coow kenn mënu ko fa jëlee